rek bi ngeen wootee seen audition bi ngeen xam ne jagleel ngeen ko candidat la présidentielle euh, lan leen leen wax. Euh, opposition bi ñu leen ko waxee dañu ko lu bu baax a baax a baax newuñ fa sax di naq nakkal ci saa si dañu joxe seen waaw camp du pouvoir bi déjà bi ñuy contacter ñu ñu war a contacter ñu nekk ci seen tappale yooyu. woy dinañ euh, fexe gis président wax ko ko jàppal bàyyi dugg na fi génn fi mais l'essentiel ñun li ñu waroon def def nañu ko mais di ràppale sénégalais yi rek ni leen 2012 bi ñuy def foire au problème Ablaye Wade ne woon candidat dafa bañoo ñëw ne di wuyu askan wi ren Macky Sall lu nekk candidat bañ ne du ñëw wuyu askan wi di di waxaat sénégalais yi rek ñoom saa bu ñu soxlaa sénégalais yi woo leen ci seen mitin yi ñu ñëw déglu leen bu leen sénégalais yi ne kaay leen dégluñu ci lan la ñuy xaar ci yéen am ku bañ muy Macky Sall kon mooy fonkul askan bi lijjantiwul askan bi amul benn cër joxul nopp askan bi Euh, mais gis nañ mobilisation bi euh, ndaw ñi dañ lañ ciy gis te ñi ngi naattab ni Sénégal ni amul euh, xëy xëyum ndaw ñi te bu saa yu wootee dañ gis nañu ndaw ñi ñoo ci ëpp waaw loolu li ko waral mooy loolooy bilan Macky Sall waroon na gis vrai bilan wam ni mooy meeting am yi dañuy mobiliser les Sénégalais di leen jox ay dix mille francs ak ay cinq mille francs ku am liggéey taluloo dem ci meeting taluloo dem ci meeting loolu ça prouve nettement que ni les cinq cent mille emplois qu'il avait promis aux Sénégalais ci sept ans yi defut ko xaaju koy def sax mu yabaat Sénégalais yi taxawaat Pikine ne leen dinaa leen jox ci cinq ans bu ngeen ma joxaatee cinq ans ma jox leen un million d'emplois ku la dig ndékki joxu la ko bu la digee añ bul ko gëm parce que euh, ndékkee gën a yomb añ alors alors euh, ki nekkoon njiitu réew Sénégal di metre Wade dafa wax que ni dañu bëgg a boycotter élection présidentielle bi est-ce que tey ji waxtaan ngeen ak moom pour loolu mu ñàkk mën a am maître Wade benn kese la am sénégalais yi léegi xam nañ lan mooy njëriñu vote kenn benn sénégalais dootul toog di xaar ñuy tànn ci palaasam moom may dem tànnal boppam du xaar ku ko ne kaay tànn kaay tànnal tànnal euh, diw bi kenn dootu fi jël consigne de vote kenn dootu fi xaar ñooy la boycotté sénégalais yi dinañ génn bu soobee yàlla voté en masse benn Ablaye Wade bu voté wul kese yàqul dara ci élection jaajëf.